بوكنا شي كرامة يال ونسيدي رياحي في فيزيت بينا خامن مومل آه، القطب الأعظم والخليفة الأخم سيدي حرازم أمونجا Euh, Tunus xam nga Sidi Harazim ci yoonu Makka mu wa mu jaaree Tunus temps ba fa def ci la yàlla dogalee Seydi Rayaahi euh, bokk ci rangu Cheikh Tidiane bës nag am di Harazim dugg ci néeg bi ni ko bu kenn dugg ci biir muy yow muy kenen dafa am ci soxla bu ma nekk moom it mu jëfe ndigal waaye góor gi yàgg ci biir torop ba mu mujj jaaxle ndax mi ko soxla waaye su waxee su fëggee su defee e, signe mu mel ni góor gi newu fi mu taxali ko sagom nag rek foncé dugg ci biir néna à ma grande surprise fekkuma Sidi Harazim ci néeg bi nee ma ne man de xaw ma fu ma jëm dëkk bi yëpp xam nañ ne fii la sëriñ bi dal te xaw ma fu mu jaar buñ ma ko laajee lan lay wax nee ma jaaxle lool génn toog ci bunt bi di xalaat nu may def ne ñu toog lu yàggul rek Sidi Harazim génn ma ne ko sàng bi li lan la man dugg naa ci biir néeg bi gisuma la mu ne ko al aarif ida kaana yadkuru al isma al isma al aazam évidemment mu ne ko nitu yàlla su dee tuddoo turu yàlla wu mag wi dafay am jamono boo xam ne yadub dafay dafay dafay ruuy ba dootoo ko mënati gis su paree delluwaat ci xaala ba mu nekkoon mu ne ko loolu mooy li nga gis looloo gën a dolleeti cofeelam ak pas-pasam ci Sidi Harazim moo tax tagg na ko waaw yaa tara yaa tara mumarridi yaa tara mumarridi dara bi bisiqaami fa huwa in yardahu aazu marami pour wax la ne la yàlla ku bëril yiw la kër Cheikh Tidiane Chérif radiallahu tabaraka wa taala anhu dinañu waxtaan ak yéen ci karaamaay ñi àndoon ak Cheikh Tidiane qaddasallahu sirrahu ci jotaay yu bare bari bi idnillahi tabaraka wa taala Sidi nag doy na ko taraanga Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu nee amul lenn luy jógee ci moom di dem ci benn waliyu benn xalifa benn mbindeef lu dul ne ci Sidi Harazim lay jaar yàlla ñu leen yàlla fayal yiw te doon na lañu seeni maqaamaat bi barakati alquran alkarim wa xurmati alxabibi sallallahu alayhi wa sallam